asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. tey jii nag ñu ngi fii ci Géejawaay arrêt Dubalès kër Serigne Lamine Bara Fall ci seen boutique univers bio di jàppale askan bi rawatina nag sunu mbokk jigéen ñi ñi nga xamante ni dañuy nekk ci seen néegu sëy lu yàgg te te am doom. am na benn traitement bu nekk nii bi nga xamante ni day faj lépp lu jëm ci wàllu am doom ñi nga xamante ni dañu am euh, fibrome de l'utérus ñi nga xamante ni dañu am kyste. ñi nga dañu am ay trompe bouché ñooñu am nañu traitement nga xamanteni buñ leen ko joxé ci kàttanu yalla ak baaxamu jërmandem di ngeen mëna am njabot ñi ngeen ko bëggé ci kàttanu yalla amna ay ñaan yu mu andal ñi nga xamante pour chat pour lamine pour rap pour jinné ak sheytaane ñu défal leen ci ay ñaan amna ñi nga xamante ni feebar leen téré am doom amna ci ñi nga xamante ni problème de ces mystique képp ku soxlo traitement yi mëng ñew ñëw way arrêt de balès kër sëriñ lamine barafal amnañu cabinet dakar amnañ ko touba am nañ ko fële itam ci booru Gàmbi Karang ak Sokone ak li ko wër képp ku soxla boor yooyu itim mën nga ci jot wala fépp foo nekk ci àddina rek daanañu mën a xefe traitement yi ba nga jot yi ñu jàppale leen ti ay ñaan may leen ci ay garab may leen ci ay traitement incha allahu rabbi ci kattanu yàlla ci baaxu yàlla ak maagu yenente bekk aminu sëriñ bi incha allahu rabbi